jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ànd ak ñun fii ci cinquième édition foire internationale bu Kaolack di amee fii ci cœur de ville bi mbokki tey xibaar yi nga xam ne moom lañ ko jagleel day ñëw ak yéen ci bés bi nga xam ne moom lañ jagleeloon wàllum microfinance mu nekk forum bu am solo boo xam ne di jotaay bu waxtaan wu ñu amal ci teewaayu jëriñ ji nga xam ne moo yor microfinance ak économie solidaire di Zahra Iyane Thiam ànd kook ñi nga xam ne ñoo nekk ci ministère am ñu teew ci euh, chambre de commerce bu Kaolack ànd ko président bi di Serigne Mboup ñu amal fa waxtaan wu am solo ci teewaayu jigéen ñi waxtaane li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum financement ak lépp loo xam ne moom moo ci aajow ñu teewlu kàddu yi Zahra Iyane Thiam di jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllum microfinance ak économie solidaire ci réewum Sénégal. may sant di gërëm également bu baax a baax euh, président Serigne Mboup xam ne wax dëgg yàlla sama xarita ah ñu ngi def liggéey bu am solo di rafetlu taxawaayam ci réew mi di am mbégte bu baax teew fii eh, tey ci suba ndax eh, xam naa eh, ci niñ koy faral di defee buñ ne ministre microfinance mi ngi ñëw rek dañ naan financement lay indi ani financement yi gis naa tàcc yi dafa xaw a yolom sax ndax dañu déggul financement waaye xar kanam bi ñu bëgg indi ci microfinance mooy bëggatuñu ñëw ne dañuy joxe financement li ñuy wut mooy jëfe ko financement ñun dootuñu ko wax dañ koy jëfe te dañ ko fas yéene jëfee ci ñaari anam ndax boo seetloo président Macky Sall dafa jël microfinance boole ko ak li ñuy wax économie sociale solidaire économie social solidaire mooy kenn ku nekk ni muy xàccandooree jëm ci borom moom rek ñu bàyyi loolu te dajale ñiy xàccandoor ñoom ñëpp ñu àndandoor def benn say maanaam mbooloo mooy doole loolu mooy économie sociale solidaire président ne dem leen ci askan bi wax waxal leen maag ñoom ñu gën a boole seeni yi doole microfinance door a ñëw mën leen jàppale kon li ñu wax mooy loolu buñ ko bëggee def collectivité territoriale yi dañ ci am solo ndax daanaka ñoom ñooy émanation euh, euh, population yi te président Baba Ndiaye am na lu am solo lu mu wax sànq nee na collectivité territoriale munul dem sans chambre de commerce wala chambre de métier daanaka benn la donc ñoom ñaar ñu ànd toog fii day gën a yombalal liggéey bi nga xam ne président Macky Sall def na donc li ñu mën a wax ci gàttal tey su fekkee ne yëngatu bi nit ñi di yëngatu à bëgg nañ ko gën a dooleel ñun ministère bi li ñu fas yéene def ci 2020 bi ginnaaw bi assemblée voté fonds d'appui à l'économie sociale solidaire mooy fekk acteurs yi fa ñuy yëngatoo ñu identifier li ñu soxla ci filière identifier besoin en équipement yi identifier besoin en formation yi euh, FIMF mi ngi fi le fonds d'impulsion à la microfinance su paree nag ñu door a jël ci fonds d'appui bi jég jébbal leen. mu nekk kàddu euh, jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu microfinance euh, ak économie solidaire di Zahra Iyane Thiam ba léegi ci bés boobu nga xam ne moom lañ leen jagleeloon ci ngoon gi amal nañ tamit waxtaan wu am solo. boo xam ne invité nañ ci réseau des femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllum financement ñu ko doon amale fii ci euh, cœur de ville bi ci teewaayu euh, soxna yoo xam ne ñëw nañ waaye rafetlu li nga xam ne moom moo di foire internationale bu Kaolack taxawaayub Serigne Mboup ak ni nga xam ne noonu lay jàppale mboolem jigéen ñi ci financement yooyu yëpp nekk loo xam ne waxtaanee nañ ko ki nga xam ne nag moom moo di. jëwrin ji di Zahra Iyane Thiam profité na ci occasion bi dugg ci biir foire bi visité stand yi waaye ànd ak ki nga xam ne moom moo di le président de la chambre de commerce de Kaolack Serigne Mboup nemmeeku li nga xam ne moo jëm ci foire internationale bu Kaolack ci exposant yi waaye it rafetluwaat bu baax a baax a baax li nga xam ne gis na ko fi ndax nee na jàppul woon ne li nga xam ne moom moo nekk fii nii ci foire bi am na fi fii ci diwaanu Kaolack mbokk yi ba léegi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel euh, foire bi ki nga xam ne moom moo di Aziz Ndiaye nekk moom it opérateur économique ñëw na ci invitation président euh, chambre de commerce bu Kaolack di Serigne Mboup ngir mu ñëw nemmeeku li nga xam ne moom moo di foire bi ànd ak moom visité ko moom it euh, ginnaaw visite bi mu rafetlu ko lool jàpp na ne moom it li nga xam ne moom moo di foire internationale bu Kaolack daka daan dégg rek waaye jàppul woon ne àgg na fii ak ni nga xam ne noonu la ko Kaolackois yi moomalee seen bopp ànd ko ki nga xam ne moom moo di sëriñ bu waaye mu santaat ko bu baax gërëm ko ci taxawaayam mu jëm ci wàllum koom-koom rawatina fii nii ci Kaolack Ndangaan mbokk yi xibaar yi cinquième édition foire internationale bu Kaolack dañuy waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci journée de consultation gratuite boo xam ne hôpital El Hadj Ibrahima bu Kaolack amal nañ ko fi lépp rek ngir ànd ak foire bi ci li nga xam ne moom moo di activités yi fi am. loole moom moo tax ñu amal journée boo xamante ni dañ doon maye deret loolee ngir euh, lépp loo xamante ni jëm na ci foire bi ñu dugal ci seen loxo ngir euh, Kaolack la ñuy wax loole moom moo tax ki nga xam ne mooy directrice hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ñëwaat na ci solo si nga xam ne maye deret am na ko waaye ni nga xam ne noonu la askan wi di jàppale hôpital bi rawatina ci cinquième édition foire internationale bu Kaolack ñu ànd teelu kàddu yi Khadijatou euh, Sarr nga xam ne mooy directrice euh, hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack. suñu teewaay ci foire bi li ko waral mooy euh, bokk ci d'abord parce que nous sommes de Kaolack nu som l'hôpital de référence un EPS de niveau de donc lu xew ci dëkk bi war nañ ci profito wone li hôpital di liggéey tous les jours. li hôpital nit ñi li ñu xalaat ci hôpital montrer activité yi ñu def comme fin d'année la sur 2019 fin d'année euh, activité yi ñu dox yëpp fi ñu bëgg yóbbu hôpital bi nit ñi xam ko loolu aussi FIDAK bi dafa ñu won euh, dafay une opportunité boo xam ni nit ñi dinañ gën a mën a xam liy def liy hôpital di liggéey tous les jours ñu commencé ko tey nag ci maye deret maye deret du am solo loo xam ni du loo mën a jënd pharmacie deret kenn du koy jënd pharmacie mais nit ñi ñoo koy joxe ndi joxe boobu nag dafa laaj sensibilisation dafa laaj waxtaan dafa laaj yu bëree bëri ndaxte day sauver des vies euh, deret day day day tax nga mën a sauver des vie te loolu dafa am solo waaw tey am nañ yaakaar ni lu bon bon dinañ fi mën a jële cinquante euh, wala lu mat téeméeri euh, donneur waaw te ñu ngi xool nan la ñuy organiser woo ba chaque jour ñu man ko def. mu nekkoon kàddu yi Khadijatou Sarr Kébé mi nga xam ne mooy directrice hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ci kàddu yi nga xam ne euh, yëkkati na ko ci don de sang bi nga xam ne ñu ko doon amal fii nii ci foire bi. mbokk yi li leen leen indiloon tey ci xibaar yi nga xam ne moom nañ jagleel cinquième édition foire internationale bu Kaolack santaat leen bu baax gërëm leen ci ànd bi ngeen àndoon na ñun ñu ànd ak yéen tàggoog yéen ci image yi nga xam ne mooy am ci foire bi mu jënd ak njaay mi ak Kaolack waay di nga xam ne noonu lañu ñëwee saa su ne ci foire bi ànd koog ñi nga xam ne ñoom ñoo di organisateurs yi dig leen daje ëllëg incha allah jërë geen jëf